janvier bi nga xam ne li des maanaam dans un mois yu mat xam nga te tey ku organiser bisam soxla nga promotion bu doy. Mhm. utee sponsor sponsor yooyu noonu nga defal leen promotion ba gis seen bopp. Mhm. tey loolu waxin la waxin bi mooy staff bi gis nañ seen mbër ci état bu leen neex moo tax waxin la rek ni pare nañ waaye caageen ni fii janvier wala yooyu parce que promoteur bi dëgg combat kay. moom it soxla na ay sponsor def promotion ci combat. Mhm. loolu quoi dañu ko baax.